waaw tey c'est bien de kontaan naa trop vraiment parce que démb dama doon joxe ndogu biir géejawaay ngaa ko ñëw accompagné ma donc man tamit dama koy fay borom rek voilà ñu ñëw. ban relation nga am yaakaar ba ana gii nii tax na tey nga war a bon lii mooy suñuy relation je peux dire di partager di def te yàlla tax voilà di damalante donc euh, sama frère la rek. sa frère ah mais li may ñaan li may ñaan mooy. Ah <laughs> <laughs> kii daa guddee. salaamaaleykum na ngeen def. yéen a ngi am jàmm. rajo bisimilah. <laughs>

allez merci beaucoup donc. merci hein. mu ngi non daal. waaw mi ngi en tout cas content naa content naa être mon flow xam content kontaan si Omzo content naa aussi si Abiba voilà quoi parce que lii mooy li ma wax rëy na ci man trop trop trop parce que mooy li ma wax léegi léegi ne à chaque fois artistes yi xam nañ temps bi ni muy xatee ci koor gi journée yi dañuy xëm xam nga naaj bi la ñuy am pour régler yenn activités yi et tout ngeen bàyyi seen lépp déplacé wu ñëw pour ngaa ko blindé ñëw aussi pour blindé blindé yi ko organiser donc loolu en fait fierté bu ngand ngand la ci man te mooy li ma wax léegi loolu laay waxaat ah, képp koo xamante ne en fait nga nga nga na mu bëggal ñi parce que ñi ñoy sama ay nit quoi képp ko xamanteni après respecté nga nga nga respecté ma ñi ndax ñi ñoy sama nit et bis ne ki tay voilà moy ñi nga xamanteni musuñu xam relation yi ma am ak ñi nañ ko xam te xamne lepp lu ñuy def dafa melni nga ko blender mo koy def niñ koy niñ ci jappé di ci sot di def ay cas di def ay lepp taxawuma nañ koy def pour artiste parce que sama ay gaay lañ sama real joe lañ yag la te ba léegi changé wuñ quoi Habib Ba tamit pareil démb ñëw na waaye def affaire yu cool tey mu bàyyiwaat ay item déplacé wu ñëwaat pour Ngaaka Blindé donc tamit bëgg naa xam nga voilà quoi chapeau à gars yi quoi.